sallallahu ala muhammad sallallahu nuru muhammad mbokk yi Kun Fayakoun TV yi ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen baal xaq te di leen ko baalu yéen yi nga xam ne ni yéen taataan canal bi ñu leen ci indil njariñ boo xam ne ni ñëpp ñoom ñoo ci mën di jariñoo surtout si tiktok bi ak youtube bi ak sinab bi yépp tey nag ñu waxtaane li nga xamee ne ne muy moo concerné góor ak jigéen goo xam ne dañuy sëy ñu am problème bi nga xam ne ne mooy am doom nga xam ne ne dem nañ fu nekk mënunoo fexe ba jël ëmb muy ku góor ki ah, ndoxam moo normal wala ku jigéen ki ay torompo moom moo bougé wala yenn saa yi muy def saa bu jëlee ëmb mu tuuru te loolu dafa am lu ko waral am na ñoo xam ne ndoxu siti moom moo leen sonal surtout maa ngi koy wax su sama mbokk góor yàlla yi nga xam ne ñoom ñooy am problème mu ndoxu siti ba nga xam ne ne buñ ko xasee ba am danan am jafe-jafe boo xamee ne ne seen awra dafay faral di tuur yenn saa yi muy am far ba pare dañuy gaaw a euh, euh, mer ba pare seen gént yi dafay jaxasoo seen yaram yi di tàng ba pare euh, jàpp suufu tàng surtout si ndigg li loolu lépp lii moom moo ko waral muy ndoxu cité ak hémorroïde moom moo boole loolu loolu na bu xasee ba boole dootoo mënate sa soxna dara ngay gaaw àgg nga naan lan nag la daal bu dee si côté jigéen ñi la day mm, wowal seen kanam yi ba pare duñ yëg bànneex ba pare buñ àndeek seen borom kër dafay tuuruwaat loolu lépp nag. Eh, nga xam ne ni yenn saa yi dañuy force sax ba jël si am waaye bu ñu demee ba sa digg ba dafay tuuruwaat loolu nag ñun waa Karateyn TV Kun Fayakoun TV ñu indi leen si garab yoo xam ne lépp ñu ngi ko defaree alxuraan nga xam ne ne képp koo xam ne jël nga traitement bi nin la ko waxee ba def ko sunu borom dana nga xam ne ne traitement doom boobu képp ku ko def sunu borom dana yombal yow da nga jël ëmb bu dee ko jigéen gi bu dee ku góor ki nga xam ne am ndoxam dafa normalul am na garab yoo xam ne dañ ko ci jox mu boole ko buy ndoxam day normalaat carrément ba nga xam ne ne problème mu ndox moom dootu ko amati ñuy bépp góor goo xam ne tamit da ngay jàmmat dangaa gaaw a àgg nga xam ne ne bëgg nga ñu génne la ko ci sa wàllu yaram walla mënatoo lu bari lépp ñu génnee la ko ci alquran incha allahu rabbi boo leen wootee ci numéro téléphone yooyu wala ngeen envoyé message ci chaîne bi nga xam ne moom mooy Kun Fayakoun TV daal leen ci taxawu nga xam ne lépp bëgg na ñëpp mën a jariñu surtout ci mbir yi nga xam ne ne ñu ngi ci jéem a sàkku surtout ci jamono ji beneen bi képp koo xam ne danga amee hémorroïde mu sonal la lool dee faral di naan ndox mu bari toujours ñuy ngeen di bàyyi tamit taxaw di naan da ngeen di moytu gerte gi nga xam ne ne gu ñor gi la képp koo xam ne ne amee nga feebar yi nga xam ne ne moom mooy ndoxu te boo leen di lekk ngeen di bañ di warax say sàq mi li ngeen lekk surtout ku nga xam ne ne ay jafe-jafe yooyu daf koo sonal beneen bi maa ngi koy wax muy ma si jigéen ñi bëgg na nag yow mi nga xam ne yaa ngi seetaan canal bi ñu ngi lay invité nga abonné te bés kolos mm, bi nga xam ne vidéo mu def nga mën koo am si sensé ah, beneen bi